gërëm ñi fi teew bokk ci front bi ak euh, sunu mbokk journaliste presse bi nga xam ni dëgg-dëgg saa bu ñu wootee euh, ñu wuy si ñu ci gërëm bu baax a baax euh, bala ma dugg ci déclaration bi rek comme ni ko honorable aji berga mergan nu mu di mergan front social et républicain li tax ñu teg ko mooy ku ne xam ne ni Sénégal métti na wax ci lu mu bari bari ku tër ba guddi rek waxtaan sa njëgënaay di nga xam ne réew mi metti na te métti gi nag li ko waral du dara lu dul tey dund gi seer na dem ak dikk jafe na liggéey jafe na te loolu mooy liy wax urgence sociale te képp kuy politique bala nga toppatoo dara war nga toppatoo dundu askan bi kon dañoo fas yéene ñun nekk ci wetu askan bi comme niñ ko mës a nekkee. moo tax ñu bëgg assemblée ñu am fa majorité boo xam ni ay député yoo xam ni ndax en principe député askan moo ko fa yóbbu askan la a teewal même su la dugalee ci liste euh, nationale nga jàll sax da nga war a am devoir d'ingratitude nga teewal askan waaye it république suñu réew mi li tax mu taxaw ñu am un pays debout depuis 1960 c'est parce que dañoo nekk république république nag du dara lu yamale askan wàllu waaso wàllu bépp xeebaate ñu génne ko sunu biir ñun ñëpp ñu nekk ay citoyens nekk ay républicains waaye aussi euh, li ñu wax yoon ñun ñëpp ñu yam fa li ñuy wax ay ay chance aussi sunu réew ku ci ne la mu jox ci chance mu jox la ko ba tax na ñu wax république bañ a wax rue publique ba tax na kuy wut nguur nga bañ ko wut ci mbedd mi boo amee nguur it nga bañ ko gérer à travers mbedd bi parce que mbedd mi euh, ñun ñëpp ñoo ci yem te réew yu bëri mbedd bi moo leen tas moo tax ñetti coalition yi ñuy wax ensemble pour demain nga xam ni Aji Bergane Kanouté moo ko jiite te ku wax ensemble wax booloo ku wax booloo wax doole parce que suñu bëggee suñu réew mii naat suñu bëggee suñu réew mii am doole suñu bëggee suñu réew mii faj ay soxlaam ala kulli alin foog ñu booloo waxuma sax réew mi mais boo xoolee Afrique nga xam tey nekk na cinquante 54 états nekk presque continent bi gën a faible nga xool États-Unis nekk une fédération de 52 états nekk conti euh, réew mi ëpp doole continent bi ëpp doole kon nga xam ni mbooloo rek mooy li nga xam ni moo am solo. te demee aussi ku ne war nga bàyyi xel ndax ñun. Afrique comme Sénégal dañoo war a bàyyi xel ëllëg ba politique yi nga xam dañ koy teg ak politique bu mën a doon ci wàllu éducation wàllu économie wàllu commerce lu mu mën a doon pétrole gaz ñu bàyyi xel ni ay ñuy jiitu dañoo bàyyi réew mu ñoŋ ñun aussi ñi di ñëw ñu bàyyi leen ak réew mu ñoŋ def naa loolu mooy ensemble pour demee doomu réew mi waaw ku ci ne war nga sentir ni Sénégal nga bokk te bokk bokk nga bokk aussi nga bëgg ko te wax dëgg yàlla bu Sénégal di football rek ñëpp xam nit ñi bëgg nañu bëgg nañu Sénégal waaye nag loolu tamit ñi jiite réew mi dañ ko war a bàyyi xel ba képp kuy doomu réew mi chance bi ñu la war a jox pour nga jàng chance bi ñu la war a jox pour nga faju taxawaay bi nga war ñu war a taxaw pour ñu former la taxawaay bi ñu la war a taxaw pour nga am liggéey mën a tekki sa dëkk ba ñu jël gaal gi état bu responsable bu nekk ci loolu nga war a jublu ba képp koo xamante ne bi doomu réew mi la nga sentir ne non seulement doomu réew yi la waaye it bëgg naa ma doon doomu Sénégal contrairement ak li ñuy gis nga xam ni ñu ngi bëtt fu nekk ci yi pour dem Europe pour dem Amérique ñu bëjee aussi gor muy grande offensive républicaine gor moom ko ko dégg ak gore nga war a xam ni dafa bokk suñu valeur te waruñu ko fawee surtout kilifa li ma Alassane wax keroog ne ma waxu kilifa du am jikko laalo maanaam du tax waxu kilifa fu ñu ko teg war nañ koo fekk foofu waaye kilifa kilifa goo xam ni su waxee mu dañ su signé mu dañ kilifa googu matul kilifa ndax àdduna bi ci wax maanaam ak ci signature la engagement yëpp di amee te bu fekkee dañu Sénégal kilifa ga ko jiitu waxam teguwul fenn signature am teguwul fenn su boobaa réew mi day dugg ci ci te loolu it ñun képp kuy sénégalais war koo moytu waxuma la sax kilifa tan ndax day tax ku la war a lebal du la lebal par que daan kii kat xam day tuxu donc loolu nañ ci nañ ci nañ ci bari xel loolu moo tax tey tey ñu tànn li ñu wax front donc sociale et républicain social parce que cette fois si dañuy politique ñu jiital askan bi waaye ñu bëri dañuy politique jiital falu ñuy tàmbali nag di jaale ñi nga xam ni xale yi nga xam ni fan yi ñu euh, jógee ca mbuur certainement ak ci feneen parce que li fay li mën a lañ mën a xam ñu leen di jaale bu baax di ñaan yàlla ñoom ah, xaraleen xara waaye accident yu bari yi C'est comme si la vie d'un Sénégalais ne coûtait pas cher. Sénégal fii day am accident cinquante morts quarante morts vingt morts dix morts du inquiété kenn te am ay dëkk yoo xam ñetti nit rek bu ñu fa dee ñu ngi kon loolu war nañ ko war nañ ko seetaat que yi di dee comme ay weñ ci tali yi ci géej gi ah loolu war nañ ko war nañ ko seetaat te politique yi ñu ci war a def pour mu dakk ñu def ko te bàyyi ñu wax ju bari ji mbir mi du affaire ay gaaf mbir mi mooy nañ ay tali yu baax nañ wut oto yu baax nañ wut chauffeur yoo xam ni non seulement mën nañoo dawal mais yar dañu leen mais tant que ñetti conditions yi kenn réunir ko bu neexee yàlla lii dafay continuer wax naa sànq def naa jarul ci dellusi si ni coalition bi front euh, social et républicain initiative la ndax bu ñu fi jógee dañuy dem seeti ñeneen pour ñu ñëw adhérer ci front bi donc ni ko coalition yi ko teg muy euh, ensemble pour deme bu Adji Mbergane Kanouté doomu réew mi bu Alassane Cissé ak coalition góor bu Maguette Ngom ak Mohamed Moustapha Diagne donc mooy ñetti coalition yi nga xam ni teg nañu euh, mbir mi pour dem nag seeti euh, ñi ci des pour waxtaan ak ñoom déjà sax depuis le premier septembre am na ñoo xam ni ñu ngi waxtaan ak ñoom pour ñëw adhérer ci front bi kon sunu mission dafa dafa dafa mission bu rëy la parce que lu ñu bëgg mooy opposition bi mu am front bu mag a mag a mag pour jàkkaarloo ak ñii nekk ci nguur gi loolu nag dafay laaj nga jóg jël sa jël sa tànk parce que it ci ay élection député la ñu nekk ndax ku ne bëgg naa falu dem waxtaan ak ñoom waxtaan ak gépp kuréel wax leen ni dafa am lu ñuy wax contradiction principale maanaam li ëpp solo moo ñu fexe ba assemblée bi nguur gi bañ ci teg loxoom parce que loolu du intérêt sénégalais yi ndax ñii fi toog jox nañ leen ay maires jox nañ leen ay bi bii ba euh, ci assemblée bi passé mais tey jox nañ leen li ñuy wax pouvoir exécutif kon lu ñu bëgg a doxal mën nañ koo doxal te kenn mu leen ko tere doxal waaye loi yi nga xam ne nag dañ koo war a voter assemblée loi yooyu moom il faut sénégalais yi def ci attention ndax ñi fi nekk lu bëri dañ cee dellu ginnaaw ndax am ñu nekkoon ci opposition bi di wax di nguuru i Sall dañoo bëgg a daganal góor jigéen bi ñëwee ci assemblée bi amul benn loi ñëw ci nguur gi amul benn loi bu ñu voté bu ñu bu ñu yóbbu foofu pour dagalal pour ne dañ koy criminaliser lu lool te pourtant ni ñu yóbboo loi pour tas 16 tas HCCT moo na yóbbu loi pour criminaliser affaire góor jigéen waaye defuñu ko